dallee nag jàmm turu Mamadou Mamour Diallo ak Matar Ba fés na lool ci yéen kaay yi nu xëyandool tey l'observateur ne li ko waral moo di dañoo demoon ba noppi dikkaat journal Futur Média bi ne démb ci conseil des ministres la njiitu réew mi di président Macky Sall jëlee dogal delloo si leen Vox Populi ne Matar Ba mi fi nekkoon ministre des sports te ak jugéem ci gouvernement bi juróon loolu coow démb la ko président Macky Sall delloo si def ko mu nekk chef de cabinet du président Mamour Diallo moom gannaaw ñetti at yu nu seppee loxoom ci mbir yi démb lañ ko ci dugalaat moom it def ko mu nekk directeur général bu ONAS le quotidien ne Mamour Diallo ginnaaw ñetti at yu mu def frigo génnewaat na ci caniveau yi Walf Quotidien ne Mamour Diallo ak coow li doxoon ci digganteem ak Ousmane Sonko njiitu di président Macky Sall na ko keneen ki mu geetar di Matar Ba moom ak tabba mu nekk ministre chef de cabinet du président jur na coow enquête yéen a kaay ne tempête dëgg moo am ca pale ba gannaaw bi nu tabbee Matar Ba journal bi ne li ko waral moo di yuuxu dafa jib fu ko foogewul Pape Samba Diop jege lool président soleil national wax na ko journal bi ne président Macky Sall démb ca conseil des ministres fa la xamle ne Pointe Sarène Mbodiène Joal Fignon Île du Saloum ba ci Basse Casamance barab la yoo xam ne noppi na ngir soqale ko waaye te ñaax premier ministre ak ministre bi yore wàllu tourisme ñu def ca la leen war ku war gaynde ba wàcc ko leneen loo warati du la saaf Vox Populi ne yenn ci ministre yi fi nekkoon loolee la ñu ba tax biñ leen wàccee ku nekk a ñaxtu moo leen jàpp ndax nag kenn toogu fi ngir nekk ministre abadan ci les échos ñu fekkaat ko fa mu leen di woo ak dal dinaan leen nekk ministre dëgg-dëgg dogalub sunu borom rek la mën a doon moo tax boo ko doonee ba doonatoo ko war nga caa ànd ak ngor Thérèse Faye Diouf mel ni ku naan ki war a ak ngor kay moo di Aminata Touré ci journal Le Quotidien administrateur général bu FONGIP dinaan Mimi gënu fee mérité kenn ci leen ko daan jox te nag Sonko li muy def te tuddee ko nemmeeku tuur tàggatoo tuur la ci moom le témoin ne lu ci mën di am daal moom Ousmane Sonko moo ngay wéyal ab nemmeeku tuuram waaye journal bi nee na kenn gisu fa Barthélémy Diaz kenn gisu fa Khalifa Babacar Sall kenn gisu fa itam Déthié Fall lii tax yéenekaay bi samp ne ndax Ousmane Sonko ko Pastef noppi wuñu ngir génn yeewi askan wi le journal ne askan wi daal nañu fagaru noppi ñoom ak politiciens yi fii ak weeru a jàng tey si du quotidien ne loolee bu weesoo ak ñàkk a nekkam da cee bari loo xam ni kilifa yu yore wàllu njàng mi waxoon nañ ko te nekkul bëri na ci école yoo xam ne ci réew mi la nekk ba tey ñoo ngi wëy di tëmb ci ndox mi fu ci mel ne ndargee ci Kaolack Sédhiou Tëngéej ci Matam ba Ziguinchor fu ci nekk bëri na ci école yu fa nekk yoo xam ne seenu melokaan na la ko yàlla nëbb direct news ne dëgg la réew mi am na fi ñaari téeméer ak juróom ñetti fukki école yoo xam ne ñoo ngi wëy di tëmb ci mbënn mi ba léegi lii tax yéen kaay bi ne njàng mu suufe meeg mu digg doomu mi liñ ci waxoon fast track ci slow la mujjee yi traque dëgg la ñuy def ki fi nekkoon PDG waar yi bés bi la journée Kabirou ci ñeenti xale yu jigéen ñoo koy jiñ viol ba jamono ji cib contrôle judiciaire la nekk ca France Kabirou Mbodj ne dañ koo kompalo bëgg koo jiñ loo xam ne defu ko ngir jëlee ci moom ay koppar journal Le fa ne moom kay doy na waar ndax Kabirou Mbodj ci lii ñu koy tuumaal doy na waar viol la te ñeenti jigéen ñoo ko ko tuumaal ku ci nekk itam di leeral guddi gi la waa ji violé lépp it moo ngi xewe ci réewum France ca France le président Abdoulaye bu daw yaram la ñaari président yi doon wax journal bi ne wax nan itam ci réew mekk ni muy doxee boole ci ñaanal Sénégal ñaanal déndu Afrique ñaanal itam France def itam ab taxaw seetlu ci li nar a soppeeku ci langu politique gi lii quotidien lan la président Abdou Diouf ak président Abdoulaye Wade di waajal ñuy waaja ut visa ngir dem réewum France nañu moytu nañu xool bu baax fa ñuy teg seen tànk libération yéen kaay ne ab mafia bu am doole bu ci doon a division des investigations criminelles ngir ñu lijjanti mbir mu ni mel fi mu toll nag yéen kaay bi nee na takk der yi lalal nañ leen dëgg sërëx ba gaa yi ñoom ñëpp a ca sorux NCA assurance Gam Brandy la beauty Malaysia Yumo ñoo leen doon may li ci yéen yi ñu àndoon ceeg Serigne Saliou sekk ci yéenekaay yi di ko gërëm ak yéen yi doon teewlu xibaaru 8h yeeg RFM njiitu réew mi président Macky Sall démb ca palais ba ci lël ñu jagleel gouvernement bi ministre yeeg doxalin wi war ci ñoom ci lañ leen dénk na ay ndomba bokk na ci la mu leen fàttali mooy kon ñu xoolaat toogaay ak doxalin wi fàttali te ñi nekkoon ministre nekkatuñu ko ne yëpp yi ab sas rek la woon bu am tàmbali amuk njeexite jarul di dok lépp loo xamante ne mooy confiance wala loyauté di ak kon ak kóllëre wàllu xibaar bokk na ci it caare njal gi ca diwaanu Fatick lu ëpp ñaar fukk ci ay dëkk yu amul courant waral euh, njaboot geeg askan woo fa di sàkku ci kilifa yi ñu taxaw ci ndax xam ngeen ñàkk courant daanaka dafay am jeexiti ci dund askan wi ba ci sax euh, yokk ñàkk gi ndax yëngu-yëngu activité yi muy euh, yemale hôpital bu Ourossogui yi moom ca bët gànnaar Sénégal ak bànqaasu SUTSAS ba fa fare seen digg ak directeur hôpital ba ba tey neexagul xajam waral syndicat yi ñoom ne ci seen neuvième plan d'action àndoon nañ ci roxee ñu daal di waxtaane li nga xamante ni mooy séminaire gouvernemental bi ñu doon amal démb ca palais ba lël la ñu jagleel jiwriñ ji lu daal di weesas lëf Euh, weer euh, ginnaaw bi ñu taxawalee gouvernement beneen fii ci Sénégal euh, njiitu réew mi président Macky Sall ay kàddoom bokk na ci jëmee ci ñoom jëwriñ ji di leen fàttali rek ni ñu war a doxee war ko toog ci pénc ak doxalin li ministre mën a def ak lu munta def ndax koo xamante dañ laa tegab sas bu say morom yeneen naam mënoon sax du ñàkk ci réew mi wala ñu la ko dàq waaye ñu tànn la ci lim bu gàtt ci millions yi millions yi doomu adama am na noo war a doxale ba ci topp mooy ndombay tànk ministre du lu sax bu buñ la ko tekkalee jarul guuxi leex di mer ak yeneen ndax mission la rek bu am tàmbali di am jeexite ñu déglu président Sall waa RTS. pour vous maîtriser les ndaje bi dañ ko amal euh, ngir ngeen xam nan la ñuy doxalee euh, ak seen taxawaay en tant que ministre du lépp ngeen war a def ci seen liggéey ak seen i doxalin nekk ministre sag la ñu tànn la ci kanamu ñu bëri ñoo xam ni liggéey bii ngay def mën nañ ko euh, may fàttali rek ni ministre mënoo ko nekk abadan comme mbir yëngal na nit ñi ñu ngi ci wax lu bëri. Euh, mën nañ ci wax mission lañ la dénk euh, bu jeexee ñu libeere la euh, nga dellu ci say activités yi nga nekkoon wala leneen te buñ la soxlawaatee mën nañ la woowaat te ñu tekki sa ndombal tànk tekkiwul benn yoon ni wóolootuñ la wala amalatoo ñu njëriñ déedéet nekk ministre itam mooy nga taxawu askan wi ci seen bëgg-bëgg. président Macky Sall démb ci lal bi ñu doon jagleel euh, gouvernement bi euh, président yi fi woon ñoom euh, Abdou Diouf Abdoulaye Wade am na wootante bu dox seen digg talaata ji nu génn bu nu sukkandikoo ci secrétariat privé bu président Abdoulaye Wade mook président Diouf wootante nañu téléphone waxtaan woo xamante ni daanaka souvenirs yi di fàttali yu bëri woon na ci waaye it ñu ñaanalante seen biir ñaanal seen ñaari njaboot ñaanal Sénégal France ak àddina yëpp ci laata ñuy tàggoo ci wootante boobee ñoom ñaari président yi woon yu Sénégal. Sénégal diggée noonu di ko gën a faral di def yooyu jokkoo muy ab weer a des ci euh, ndorteelu coupe du monde. match ubbite gi euh, le 20 novembre lay doon diggante Qatar ak Équateur ci groupe A bi fa Sénégal nekk ci ëllëg sa le 21 novembre ci la Sénégal yi daje ak euh, Pays-Bas kon benn weer laata kon ñu àgg ci xew-xewu mag boobu boobule fal Qatar toll ci waxtaan yi suñu équipe tamit fal toll ñaandi ci ak Rougetou Sakho. fanweeri fan rek des ngir ñu amal coupe du monde Qatar 2022 ñu taxaw seetlu fu ci pays organisateur bii di Qatar tollu ak itam réewum Sénégal fële ca Qatar nag liggéeykat yi di dóor waar bu baax a baax ci biir chantier yu pareegul yi juróom-ñetti stade la ñu fa tabax ñu war a dalal fanweeri équipe ak ñaar yi war a jongante xar kanamu mbedd yi rafet loolu ñu jëmmal ko ak i peinture yeneen tour ya ñu fay tabax liggéey bi taxawul benn yoon. stade yi sax ñu climatiser ko ay téeméeri téeméeri vol war a dajali supporters yi ngir ñu mën a teewee match yooyu Qatar war a dalal si lu toll benn million si ay visiteurs naka noon it juróomi million ci ay téléspectateurs noonu it la génnee si ay kopparam juróom benn milliard ak genn wàll ngir tabax ay stade taftal si fanweeri milliards ak juróom-benn jëmale ko si wàllum hôtellerie ak dem beeg dikk bi ba si kaaraange gi sax kataax amal na dispositif bu am solo na mu seeg lëkkaloog yenn réew jege ñaale yi. naam Qatar mooy pays organisateur waaye Sénégal mooy suñu réew ba tax dañuy dellu si waat si taxawaay bi jëwrin ji yor wàllum tàggat yaram di ba Yankhoba a am jëmale ko si coupe du monde bi jëwrin ji dajale na lu toll si ñetti téeméeri nit si ay supporters ngir ñu dooleele ji suñu gaynde yi xibaar boobule nag mi nga ko xamle ginnaaw ab tukki nemmeeku bu mu amaloon si réewum Qatar ci wàll gaynde yi Aliou Cissé moom naam am na ay absence waaye suñ sukkandiku si li jotu a ruusee si liste bi mën nañ am yaakaar ni gaynde équipe nationale daañu am taxawaay bu am solo ngir dundaloo ñu yeneen ndam yu gën a neex. ñu yeggee mbokk yi Youssouf Novel di ay xibaar ñeel sunu gaynde yi yëngu ci Europe. waaw ak euh, kon euh, wax nañ ko sànq benn weer moo des laata coupe du monde bi ñu bëri ci ñoom ñenn ñi euh, nekkuñu titulaire ku mel ni Edouard Mendy démb ci banc Chelsea la nekkaat waaye Kalidou Koulibaly moom joué na match bi seen diggante ak Brentford ñu def 0-0 Idrissa Gana Gueye moom joué na match bi yëpp côté Everton waaye Newcastle moo leen daan benn bal ci dara Pape Matar Sarr nekkuloon ci feuille de match bu Tottenham ñoom Manchester United ñoo leen moo leen daan ñaari bal ci dara Liverpool daan West Ham 1-0 Bournemouth Southampton benn bal ci. dara match bi waroon dox diggante Arsenal mi jiitu ak Manchester City dañ ko daax ba beneen yoon di ko waral mooy Arsenal tey jii ci ngoon dina daje ak PSV Eindhoven ci euh, wàllum Europa League phase de groupe euh, match boobu le 15 septembre la woon dañ ko dàq euh, bi kon ren d'Angleterre làkk ko tey ci ngoon bu 19h écart jotee foofu ca Angleterre ba tey Leicester bu Nampalys Mendy mooy dalal Leeds United ca Espagne am na tamit ay doomu Sénégal yu joué démb Sabali dugg ci 79e euh, ci Real Betis bi muy daje Cadix ñu def 0-0 euh, amat Ndiaye jeeju moom euh, ak Mayork titulaire la woon ñoom Real Sociedad moo leen daan benn bal ci dara Real Madrid mi jiitu moom moo daan Celta Vigo ñetti bal ci dara kon ci match boobule Valverde. Benzema ak Asensio ñoo dugal tey ci ngoon FC Barcelone mi nekk ci ñaareelu place bi mooy dalal villa euh, Villarreal bu international sénégalais bi euh, di Nicolas Jackson ñu jeexalee ko ak 16 euh, de finale Coupe d'Allemagne démb Bayern Munich. daan yu métti la daan Augsbourg juróomi bal ci ñaar Sadio Mané titulaire la woon ci match bi waaye dugalul doomu Cameroun bi di Choupo-Moting euh, Choupo-Moting moo ràññeeku lool ci match bi ñaari but la dugal daal di joxe passe décisive ba tax na moom lañ tàbb mu nekk joueur bi gën a ràññeeku ci match boobule. ginnaaw football bi làmb ji bëre door bi ak Papa Sow mi doon janoo ak euh, taskatu xibaar yi démb. ki jiite écurie euh, jàmbaar moom kon euh, mi waaj waajal boppam ngir daje ak Siteu bu Lamsar combat bi kon ñu jàpp ko le 6 ci arène nationale Papa Sow kon démb ubbi entraînement am supporter mi waaye tamit taskatu xibaar yi moom nee na kon am na yaakaar lool ni mën na daan kii di Siteu ñu duppee ko phénomène bu Lamsar ñu déglu Papa Sow ak Mame Astou

Siteu mooy bañ. du ma ko fixeel benn temps du ma fixeel benn temps mais bu bëggee man li bëgg mu bëre ba lang bëre ba lang xeex ba juree. ah mbokk. <laughs> waaw soo mais combat boobu nar na neex Youssouf. waaw Siteu allah ay jeunes ko seq nag. ndaw lañu <laughs> nañ ko dégg incha allah moom tey moom dina indi. Mm. ay kàddu kon euh, ci la fas yéene ñëwee ci làmb ji le 6 novembre bi di ñëw incha allah. très bien jërëjëf Youssouf. ak RFM kumpa jeex na. ñu yegg seeg yéen ci chronique culture ak euh, Jean Paul Ndour. dal leen jàmm. carnavalu Dakar ñu war ko amal ñaar fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre atum 2022 carnaval bi ñu koy organiser mooy mbootaayu acteurs yi nga xam ne dañuy yëngu ci tourisme fii ci Sénégal ak waa Labelcom seen mbëbët mooy wone aadawu Sénégal itam fexe ba ñeneen ñi bëgg a ñëw Sénégal waxtaan nañ ak taskatu xibaar yi ci teewaayu ministre de la culture ñu teewlu ci Mame Diarra Diompi. carnaval bu Ndakaaru édition 2022 ndaje la moo xam ni dañu siy sukkandiku ngir wone aada cosaanu réew mi beneen mbébét bi nag mooy doon wane xarañteefu doomu réew mi ak i dooleel tourisme Fatou Kassé Sarr moo taxawal bile xew-xew. Euh, li ñuy def mooy euh, fësal euh, suñu cosaan. dañuy wax carnaval de Dakar cosaan Sénégal loolu mooy lan loolu mooy dañuy dem ci ci gox yi ñu dem ci Sénégal bi yëpp seet. lépp li nga xamante ne euh, mooy culture authentique euh, muy culture na culture urbaine aussi li ñuy wax culture urbaine di artisanat di design bi itam boole leen ñoom ñëpp indi leen euh, Dakar pour que ñu mun a wane li ñu doon média internationaux yi bu ñu ñëwee ba gis ko liñ ci am yaakaar mooy tourisme bi en tout cas ñun mu am li ñuy contribuer Euh, ci tourisme bi. thème ren bi nag euh, dañu ko dippee sport ak culture li leen nag ngir wane ni ñaari mbir la yu lëkkaloo ndax bokk ay valeur gis nañ ne Sénégal nag équipe bu mag la gagné na étoile am kan gis nañ Sadio Mané prix bi mu gagné dafa nekk loo xamante ne dafay représenter ay am ah euh, yu muy dox te valeur yooyu fan la ko jàngee fu dul Sénégal ah ci culture sénégalaise donc principe bi mooy culture ak sport am na loo xamante ne bokk nañ ko muy excellence muy ay valeur jëriñ ci yor aada ak cosaan nag nee na noppi ngir gunge yile acteur ci bépp fond ngir lépp jaar yoon na xew-xew yi nag ñoo ngi koy amal vingt cinq vingt six ak vingt